Thank <laughs> you. asalaamaaleykum sama gars yi waaw cheikh bi des na dee waaw tey nag di leen ziar yéen ñëpp fu ngeen tollu ci àdduna ah, di leen nuyu di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay fu ngeen toll ci àdduna ah, tey nag dañoo ñëw di wax ci euh, benn problème boo xam ne si am na Sénégal ndax Sénégal problème yu bari nañ mais nag tey ah, dañ ñëw di wax ci boo xam ne ñu bari wax nañ ci sax ndeysaan vraiment parce que euh, ñi ñu war a wax lu metti leen dal. Euh, ma bëgg nag yéen ñëpp ñu may seetaan tey ma bëgg ngeen prêter attention ci vidéo bi nga xam ne si moom laay def tey voilà ngeen déglu ma ak xel waaw ak xol boole leen ñaar yépp ngeen def ko ngeen déglu ak attention ndax kat vidéo bi tey ah dinaa wax ki ngeen di gis nii ah, dinaa leen ko présenter léegi ak lan mooy présence am fii voilà mais nag dana wax. ngir bopam dina waxal ñu bari ñoo xam ñi ci diaspora bi vraiment te tamit euh, ci mbir mi ñu war wax muy mbirum tobago xam naa ñu bari ci yéen dégg ngeen ko mooy ñoon ngeen xam ne gannaaw aéroport ba dañoo tojoon seen ay kër voilà ah, ki ma leen bëgg a muy Alioune Sow ca victime ya la bokk Alioune nuyul gars may doog a Euh, ñuy doog a développé affaire bi leeralal mbir mi sénégalais yi jéem cee wut ndimbal sàkku ci ndimbal ndax vraiment li leen dal dafa metti moo tax ma ne gars yi dama bëgg ngeen déglu bu baax ak attention ndax am na ay témoignages yoo xam dana war a ñëw ma bëgg ngeen xam parce que man bi ma déggee affaire sama yaram dafa daw Aline asalaamaaleykum nuyu naa la nuyul waa Sénégal nuyul waa diaspora bi nuyul yi si àdduna bi yëpp ñuy doog ko wax soxla yi. asalaamaaleykum Xaadim yow laay njëkk nuyu yow mi ma dalal di nuyu waa Sénégal yi ñëpp di nuyu baax a baax li mu fi indi tey nag du dara lu dul mbirum Tobago mbirum Tobago ñun Tobago diaspora ñoo nekk fii ci àll bi bëri nañu nag fam ñu nekk itali am ñu nekk États-Unis am ñu nekk almaañ ak ñu nekk France France fu ne ci àddu ak Sénégal ñu ngi fépp bare victimes yi ñoom ñi ngi fu ne ñu ngi fépp xarim mhm. ba mbir ma amee mhm. man fi laa nekk Europe yàgg naa fi mhm. xam nga ni immigré moom mbébétam lépp kër la bañ fi nekkee di liggéey am fi dara ba lépp ci banque bi sax amaat ci ci luñ ci yokk dem Sénégal bañ demee senegaal di wut terrain ba yàlla dimbaluñu ñu gis benn terrain Tobago jënd ko bañ ko jëndee la ñu dase si xaalis ñu tàmbali ci liggéey bi ci tàmbali liggéey ñu bàyyi fa benn diir xëy na poche yi commencé woon na oyof. Ah, waaw poche woon na parce que dama lay xamal Alioune doguma la waaye. Mhm. parce que dama bëgg ñoom tamit ñu xam lan mooy émigré ñi ne ci diaspora bi coono bi ñuy daj du matin au soir. Mhm. ak wax nga aussi lépp banque yooyu parce que fii da ngay liggéey banque jël xaalis jox la. Mhm. li tax nga lépp loolu mooy. mën a tabax wala nga def Sénégal loo xam ne si ëllëg sa retraite bis bu la yàlla dindee doole jëm la mayoon pour ngay liggéey nga mën a dellu boo demee xam la war a jiitu ci lépp mooy am makkaan am foo mhm. xam ne fa nga yeewoo yaag sa famille mhm. voilà mhm. looloo tax nag nit ki jël engagement lekk ci banque yi ci Europe gi ñu nekk muy France ak Amérique ak Espagne ak euh, Italie bi ñu nekk ak fu ci nekk voilà mais loo leb da ko war a delloo. Mhm. voilà léegi nag bi ngeen lebee lool ba pare man damay yëg ne da ngeen a xëy dong yow nan nga yëge ne yow sa terrain ba nga jëndoon doon ko tabax ah, noo def ba xam ne yow toj nañ ko. waaw laaj nga ma question bu des nag ah, sëñ Xaadim waaw question boobu dinaa ko tontu ndax duma ko mës a fàtte ndax xibaar bi maa ngi ko jot mm. ci journal TFM. su ma juumul sax Pape Ngagne Diagne moo def journal bi boobu liggéey naa ba wàcc toog sama saal nii di waaj a reer daal seen TFM journal man daal li ma ci am mooy Pape Ngagne Diagne daal laa dégg mu naan kër ya station ci aéroport ba ñu koy naan Siré Tobago xëy nañ toj ko xanaa reer ba xanaa reesul daal. <laughs> waaye xaadim xaadim jour boobu est-ce que ah, est-ce que reer naa sax jàmm jàmmi borom. est-ce que naa sax bay banaan bay bay ah, bay ah, xalaat ndax dina rees. waaw te boobu fekk na yow commencé woon nga tabax. commencé woon naa tabax. Mhm. commencé woon naa tabax ba sori woon ci. Mhm. waaw commencé woon naa tabax ba sori woon ci na ko dëgg fa yàlla. mais benn instant nag. Mhm. noonu la mbir ma daal. damay waaw loolu metti na vraiment loolu metti na trop te léegi xam nga xam nga nu ñuy def mm-hmm. mais yéen def naa loolu bi mu amee mm-hmm. euh, président euh, am na lu mu ci wax président bi ngeen jooyloo yéen ñooñu naqarlu loolu def naa président bu ma jumul mm-hmm. invité na leen ca salle des banquiers fële ca palais ba waaw maanaam kay yaakaar naa Sénégal yëpp yëg nañ ko waaw ndax ba mu ñu woowee daf ñëwoo ba pare boole ay journaliste télé yeeg ñëpp ñëw. mu doon loo lu rëy Sénégal ñëpp a ko yëg. président tamit ba wax la wax. ba pour nous. ah ok léegi xam nga nu ñuy def. Mhm. sama gaay nee li ci mhm. président Hmm? ba mu leen convoqué. Hmm? ba ngeen ñëw. Hmm? yéen victime ya. lii la leen président wax dama bëgg Sénégalais yi dégg ko. président bi déggaat ko moom tamit. parce que Macky Sall kat lépp lu mu mës a wax. respecté na ko. sàmm na ko. te réalisé na ko. Mm-hmm. lii nag moom président moo ko waxoon. Mm-hmm. man man tàmm nañ samay vidéo man lu may wax damay teg firnde. Mm-hmm. voilà firnde bi nag mooy lii dama bëgg ñu déglu Macky Sall le président lan la wax victime mu Tobago yi bañ déggee ñoom ñi ñëpp àll mi ca la bokk. ñu tas këram toj ko. lii la leen Macky Sall wax keroog ba mu leen convoqué ca pale ba. ñu déglu ko après doo ko dellu si ak àll. dans le souci de préserver. le périmètre de sécurité de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, l'État a, à travers ses services compétents, a procédé au mois de juin 2015 au déguerpissement de personnes irrégulièrement installées sur la partie du domaine public aéroportuaire voisine à la cité Tobago, située sur la Védène. L'état des lieux dressé par le collectif des victimes de ces démolitions en relation avec le bureau du Premier ministre et toute l'administration des domaines a dressé un état des lieux qui fait état de 336 personnes impactées. La direction des domaines a entamé dans une parfaite démarche inclusive et transparente en relation avec les services techniques de la primature et avec l'intervention à titre de facilitateur que certaines autorités coutumières, notamment M. Papa Ibrahim Diagne, grand sérigne de Dakar, des échanges avec le collectif des victimes, mais aussi avec toute personne ayant des prétentions sur ces assiettes foncières, de manière à permettre un recasement sans contestation ni opposition. Les travaux de prospection engagés en l'espèce ont permis d'identifier deux sites d'accueil dont la consistance se présente comme suit. Un premier site situé dans la commune de d'une superficie de 6 hectares, 6 hectares à détacher du titre foncier 526 bar, je suppose que c'est NGA, c'est Ngor Almadi. Euh, eux, ils connaissent les titres fonciers, <laughs> les gens des, impôts et domaines. Donc NGA, c'est Ngor Almadi, qui, correspond à l'ex-titre foncier 4407 Dakar-Gorée. Alors ce terrain est la propriété exclusive de l'État du Sénégal et est libre de toute occupation. Alors, le site numéro 2, cette assiette foncière d'une superficie environ de 5 hectares se situe à Yoff. à côté de la route de l'aéroport, sur le prolongement de la bande verte. Elle comprend une partie déjà immatriculée et une partie non encore donc dépendant du domaine national. En tout état de cause, l'aménagement de ces deux sites permettrait parfaitement de recaser la totalité des personnes impactées par ces démolitions. En raison du préjudice financier, mais surtout moral, subi par toutes ces personnes ainsi que leurs familles, qui ont vécu pendant deux années entières la douleur et le désarroi inhérentes à une démolition d'habitation. Cette cérémonie démontre toute l'attention que j'ai toujours accordée à ce dossier extrêmement sensible et douloureux et consiste à remettre de manière symbolique 120 attestations tout de suite, des attestations d'attribution de terrain, de substitution au collectif des victimes va se poursuivre de manière à régler définitivement cette affaire qui, au-delà de sa dimension technique, a fini d'émouvoir par ses effets assez poignants. J'ai décidé de faire remettre aux 72 familles qui ont eu des destructions, des aides qui vont aller de 10 millions à 20 millions de francs CFA en fonction du niveau de démolition. ok Aline yow defe naa ne kët ah lii président wax de leer na. Mhm. waaw dégg naa mu naan ah, net li xeex eh, xeex la. net li saaga <laughs> saaga la. waaw <laughs> dafa mhm. naa wax na leen wax ju leer te Macky sàll comme ni ma ko waxee man mii kat damaa def opération jant bi. Mhm. dem. Euh, di dégg ci àdduna bi ñu naan Macky deful dara Sénégal mhm. yàlla mi dara teewul def ma def samay gëstu ba génnee lépp loo xam ne président réalisé na ko mhm. ni ma leen wane waxam ji tey laa leen wane lépp loo xam Macky Sall def na ko Sénégal mhm. man mii kat la tax ma def loolu la tax ma sonn ci Macky Sall votel Macky Sall te nëbbuma ko àdduna mooy respecté kàddoom waaw ndax dama bëggoon lu rëy loo xam ne si Abdoulaye Wade da ko doon wax ci Macky Sall. naan il fait pas trop de rumeur mais il est très efficace. muy koo xam ne dafay sàmm kàddoom gëm kàddoom xëy na kat man dama yaakaar de sama xalaatu bopp. seen problème bi bu réglé wul ba tey. Macky Sall joxe na ay disposition xëy na ñam ko jox. ñoo deful seen waru gar. Macky Sall est-ce lam leen waxoon ci bis bii. lii ñu jot a dégg léegi. Mhm. lan ngeen ci gis yéen. waaw man de xadim waaw man jour bi moom ku gis président xam ne moom pare na pour jàppal waa Tobago mm-hmm. ndax li mu wax mm-hmm. wax ju leer nañ li mu njëkk wax mooy dèjà li ci gën a neex si wax ji sax mm-hmm. mooy man li ma jàpp man mooy ba mu ne jarul ñuy wax naan yéen a tooñ ak tooñu leen wax jooju wax maanaam man moom ma njëkk touché si wax ji kon nga xam ne kon kii pare na pour dimbaluñu waaw man dañ ba ba tay sama japp naa ni dimbal boobu sax mu ngi ci te mais bu ma juumul dafa naa ne keroog ci waxam jooju nee na leen bàyyi dañ leen ko jox mhm. ay ndàmpaay dana ñëw mhm. yooyu yëpp daf naa ne ci vidéo bi ñu dégg mhm. dégg nañ ko ci bu ma juumul daf naa ne lam jëkk respecté mooy bàyyee ya, daf naa yabal na len impôt et domaine bu ma si man ni wax ak yow fi toll nii xarim waaw man jot sama bàyyi jot naa sama baay la ma waroon fayloo état. Mhm. fay naa ko. mooy redevance yooyu. fay naa lépp mhm. yor samay këyit. Mhm. fi ñu toll nii suñu problème rek ñun. mooy terrain yi lañ amagul accès pour jot. voilà terrain yooyu man bu ma juumul tamit dégg naa ne président. am na ay sites yu leen jox. ay ngor bu ma juumul mhm. ak xawma fanati bu ma juumatul yoof ak yoof mhm, voilà mhm, waaye nek loolu la cay nekk mooy lam leen wax jox na leen ko te def garantil na leen ko fee bu ma juumul sax neen dana leen ko defal titre foncier waaw voilà président kay sérieusement xarim waaw man de jàppoon naa ne xëy na affaire état mun na yéex du gaaw moom du gaaw loolu man dinañ ko ko nangul ndax man jàpp président pour jàppale waa Tobago voilà man loolu jàpp naa ko. mais aussi dégg naa même sit yooyu mu leen jox. Mhm. jox na leen ko garanti leen état bee moom. Mhm. yéen mun ngeen ko kenn ku ci nekk daggal nañ la la nga moom. Mhm. mais dama dégg tam leneen loo xam muy lu ma jaaxal. mooy que ne yéen bi ngeen demee. lekk ngeen seeni bor. daanal leen seen i kër. et tout mais ñi jox leen loo xam ne si dem ngeen ba ñu jox leen bàyyi yooyu. ngeen ñëw war fa commencé dégg naa ba ngeen demee am ñoo xam dañoo bëgg a liggéey mhm. am ay militaires yu ñëw taxaw ne kenn du fi liggéey mhm. te président ne woon leen fii maa leen ko jox mhm. da ngeen fi tabax naa leen ko defal titre foncier et tout état bee ko moom mais luy ndayu lan moo ban problème moo fa am ba militaires yooyu mënuñu leen jox yéen ay réponse ba yéen mun leen faa tabax waaw loolu nga wax xaarim dëgg la waaw man jàpp naa ne waaw affaire bi su yéexee rek. Mhm. ci président la. Mhm. ndax président bu joxe kàddam ba pare. waaw man jàpp naa ne amatul kenn ko mën a ñëw taxaw di yéexal liggéey bi. mais bu ma juumal militaire itam ne leen lépp ci président la dépendre. mooy li ma la wax Xaadim. waaw te yow président nee na leen fii maa leen ko jox. Mhm. waaw mais mbir mi fan la lëjee fan la lëjee kon. voilà problème bi nag loolu la mooy loolu moo ñu jaax ba fi ñu toll nii ñun suñu biir affaire boobu moo ñu commencé sax. dute moo tax ñu commencé dute wu ñu naan mais est-ce que ñun président dafa pare pour tas suñu yaakaar. mais am na si. mais est-ce que président yëg na ne moom ba mu leen ko joxee ba ngeen demee impôt et domaine ba ñu jox leen seen baay yooyu jox leen site yi ak yëpp. Mhm. est-ce que ña nga xam ne ñoom la président teg loolu seen loxo def nañ seen liggéey. ndax man Macky Sall ak ni ma ko xamee ak li nga xam ne lépp mës ko promettre def ko àdduna gis ko man mënuma gëm ne Macky Sall neen leen fii mën ngeen fi nit ñëw ne du ngeen fi tabax te duñ a dox ci diggante ba peut-être ñoom ñoo deful la leen war ndax état kat bu fekkee ne sax foofu militaire bu état ko yilif état suuf su ñëw ne si ñu ñoo ko moom président jox leen ko signé ko mais militaire waratu mën ñëw di leen bloqué sinon war na leen expliquer lan mooy waral loolu bala ngeen a mere président li ma leen di ñaan rek mooy bu leen sax seen xel di ñaaw ndax Macky Sall yaakaar naa ne du leen wax loolu ba pare te du ko def xëy na am na lu ne ci diggante bu loo xamul xaw ko waa seen victime yëpp kenn xamu ko ci waaw li nga wax la man li nga wax dinaa la ko nangul mhm. ndax man jàpp naa ne président wax dina ko def man man man loolu laa man mhm. man jàpp Macky Sall man ak façon man mhm. mu mel man jàpp naa ne moom wax dina ko def kon kay sant mais nag. Mhm. xam nga tamit mbir. Mhm. day toll foo xamante ni maanaam xëy day commencé jaxasoo. parce que yàgg na bu ma juumee fekk quatre ans daanaka. Ah. voilà mbir yeex na. tamit euh, mhm. xel a ngi bëgg a ñaaw. comme ni nga ah, waxee. lool tamit. looloo tax na ñi ñu bëgg. président ak gouvernement bi ak ñi nga xam ne ah, ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall tegoon loxo tegoon seen loxo. mbir yooyu. ñu mën leen leeralal yéen. victime yi. lii mooy tax. président ne ma terrain bi yaa ko moom. ma ah. ñëw militaire ne ma doo fi tabax. Ah. loolu nag c'est seen droit la je pense que ñu mën leen ko expliquer. waaw waaw wala ñi nga xam ne ñoom la président sànq. Ah. ñu ñëw ne leen lii ak lii moo tax waaye bu ñu ñëw rek ne leen ci président la dépendre parce que président def naa defoon na signature am jox leen terrain yooyu mu jox leen bàyyi. waaw mais xaadim xaadim waaw. xëy na lu si ko xam. Mhm. ci ginnaaw man kenn mënu ko xam. mais ku ne xam na ne militaire moom. waaw la. waaw militaire moom indi boppam. Mhm. militaire yi moom foofu ñu nekk. Mhm. dañ leen fu yóbbu. voilà te ñu leen fa yóbbu ñu leen kilifa ñu seen kilifa ñu leen fu yóbbu. Mhm. kilifa googu nag du kenn. kurul président. ah kon nag président defe naa ne wax ko ko président moom mu dégg. waaw man daal li may ñaan. waaw mu dimbali leen. dimbali ñu te xam ne xaadim waaw man. dañoo toj sama kër. Mm-hmm. ba mu fa dem Macky Sall. mu ngi noonu léegi nag xam nga loolu nga wax toj nañ sa kër taxul nga salit uh-huh. léegi dama bëgg Alioune. Uh-huh. ñu déglu ñaari témoignage parce que yi ñu yónnee yi ñu ma yónnee dafa bari mais du ma mën a teg yépp uh-huh. mais am na yu ma ci sélectionné rek war nañ ko tegal. léegi nañ déglu ñaari témoignage après ñu dellusiwaat waxtaanaat ko newaat waxtaan bi après ñu ñëwaat. salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp. Bayumakiana, particulièrement famille Tobago. man nak ci diaspora bi la bok ma ngi leen di Pas yeen ñëpp donc nag ñun li ñu dal dafa metti parce que man dama jóge woon sénégal bàyyi samay parents ñëw fi ak samay doom ñëw ak samay doom nek fi di daw di liggéey nekk jigéen takk sa di daw muy neige ngay daw muy taw ngay daw muy sedd ngay daw amuloo benn jàmm nekkoo sa dëkk bëgg ñibbi rek donc nag toog ay at yu bari ba bis sama dom gis ma ndeysaan fekk na mag dugg na mu jàpp ci dem defi pre, jox ma ak la dajale ma dem Sénégal dem jënd fa ya dem jënd kër goo xam dafa presque dem eggali meublé de setul dara lulu nibi ñibbi ma dellu si wat fii bi ma dellu ma fi quatre pièces ma bàyyi kër ga joxe caabi yi liggéey ba ma bàyyi ko ne damay nibi bala may dem téléphone ba sonné ñu ne kër ga toj na mooy kër ya nekkoon ca wetu aéroport ko donc nag depuis boobu ba léegi dafa metti ma jël avion dem Sénégal

ñu jox ñu ay baay ba ñu téye baay bi suñu xol yi sedd guy ñu ñibbisi si jóge foofu boobu ba léegi ñu ngi toog rek ñu ngi toog rek man nag man mag laa bëgguma fee dee te dama ragal kenn ñaanul yàlla ñoo en France dee léegi dama ragal lool parce que nag mag ñëw na mënatuma amatuma te Macky Sall de banque sax dafa ne woon dinañu dimbali de dix à vingt boobu ba léegi ñu ngi toog rek donc nag ca wetu aéroport ba lañu joxoon foofa militaire yi dañ ko tëj am na ku ne woon kenn ci ñun ku ne lii mooy jox naa leen seen loxo du ko laal dafa xaw mel ni loolu la mais nag dama naan déedéet xam naa rek lenteur wu moo yeex mais nag loolu la mais nag depuis boobu ba léegi man de particulièrement maa ngi jonkaan rek di xaar parce que nag amatoo foo dëkk amatu munoo dem Sénégal yaa ngi toog rek di xaar xaar ñeenti at dafa yàgg bis bu jotee ngay xaar te àddina warul ay mag lañu lépp mën nañu fay fekk te xanaa man duma dee Sénégal duma dee France bëgguma dee euh, euh, France Macky jàpp ci ngir yàlla ñun ay sénégalais lañu yow yaay suñu président wax dëgg yàlla yenn saa yi damay toog ba mu yàgg sax ma ne yow mii ndax Salito ndax nag yenn yi day xaw salib wante nag ah sénégalais duñ ko wax de wante man de mën naa ko wax tey dafa mel ni salit naa wante nag di tàllal suñu loxo di ñaan suñu président de la république di ñaan jabaram ji muy jigéen di yaay ñu tàllal suñu loxo di ko ñaan ci darajay muhammad ay jigéen ay yaay ñoo koy ñaan tey ñu suñu loxo di ñaan jabaru président Marème Faye sal mu jàpp ci ngir yàlla ci darajay Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax jigéen la ni ñun ndax yaay la ndax sœur la ndax doom la donc nag metti na trop lépp jigéen bu ne xam na ni yore ay doom dafa metti nga dem bitim réew dafa metti lépp a metti donc nag voilà Macky yow yaay suñu président soo ñu bàyyee day metti jàpp ci dañoo bëgg a ñibbi xanaa duñ fi dee japp ci makki ngir yàlla yow nag jabaram ji Mariam Faisal, ni la tàll suñu loxo di la ñaan ci darajay mohammed rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga jàpp ci te maa ngi nuyu képp koo xam ne mi ngi ciy jàpp maa ngi nuyu Sénégal yépp jërëjëf jërëjëf monsieur le président jërëjëf soxna si muy Mariam Faisal, Sall jërëjëf. asalaamaaleykum mbokki Sénégal waaw kii nag seen benn doom la bu nekk diaspora bi. yàlla def nag ñu bokkoon ci victime u Série Tobago yi nekk diaspora bi Série Tobago mooy Série boobu ngeen doon dégg ci wetu aéroport bi te ñu daal doon kër yi yàlla dafa dina man ci laa bokk maak sama mor mi nekk fii diaspora bi waaw mu nekkoon nag lu tiis metti mais ñu xam ne nattu moom ci jaam la dal muñ loo ko yàlla nag xam nga boole kook nag gëm yàlla gu mat sëkk sëkk sëkk waaye nag di ñaan yàlla aussi mu teguñu natt boobu ndax moo koy tegaate te ku tegee rek mu jeex yàlla defee loolu amit euh, suñu président de la république monsieur Macky Sall daf ñu recevoir salle des banquets remettre ñu ay boo xam di ñu aussi ndàmpaay mais problème mooy bu ñu joxee boo yi ak ni mu waxee woon ak ñun ñun ñëpp dañu ne sotti na dem ci banque yi jëlaat yeneen prêt pour mu jotee suñu suuf mën koo tabax boobu ba léegi nag yëf yi tàkkatémbe donc xam nga te xaalis xam nga xaalis ci poos moom nga xam na ni muy demee. nga am senegal solicitation yi duñu jeex xam nga say soxla sa famille moom xaalis baa ngi ruus suñu loxo di beneen coono encore ñu yaakaar nag dafa yegul li xew ñu bëggoon ko alerte nag à travers vidéo bi xamal ko ni daal lam ñu waxoon ñun ñoo ngi koy xaar ba léegi waaye wax dëgg yàlla mbir mi xaw naa yéex yéex na te it boobu ba léegi aussi ñi fi resevoir bari na te ku ñu recevoir it lam ñuy wax it buñ dem ba ci biir dañuy gis ne rek xel suñu xel sax day commencé tey daal te wax dëgg yàlla moom lam ñu waxoon daf ñoo doyoon sëkk mais ñun ñu booleel moom naan lam wax lam wax ak li ñu ñuy jafe moom ute na daal ñu xamul ne fu mu tagee daal mais ko wax mu ne chef d'état moo yor décision bi ci moom la moo war a décision bi donc ñu bëggoon rek mu dimbali ñu baral jéego yi ndax yéeneem ji rafet bi mu amoon ci ñun xam nañ ko ako yàlla kàttanam nag mu àggale ko jàmm ak salaam waaw di ko xamal rek ni ñun ci njaboot lañ bokk ci askan bi lañ bokk ci njaboot lañ bokk njabootam lañ bu ñu dimbalee Sénégal la dimbali ndax ku ne xam na moodu moodu ak faatu faatu eh. yi immigré en général li ñuy daj bitim réew te lu ñu am Sénégal lañ ko jëmee donc war na aussi buñ tollee ci yenn situation yi moom mu nga xam ci mooy bàyyi ñëpp mooy de la nation jàkkaarloog moom ak suñ soxla ndax kat moom nam ko xewant rek waaw njariñu chef d'état wala ministre ki may faj aajo askan wi waaw bii nag moom ñoo xamante ni la am xaaruñu état dañoo demoon nag fas seen jom koor koor ba am li ñu am état yàqal leen ko waaw pour bu ko nag bu ko réparé loolu dañ ci sant yàlla rek waaye di ko xamal ne bu gaawee ñu jël ndax bu yeexee ya du baax waaw ñun suñu biir ñu ci wàññeeku bari na ñu ci feebar bari na ñu ci am ay problème bari na donc ñu koy ñaan mu gaaw baral jéego yi te xam ne bu yeexee tuuti tuuti tuuti ñam jeeg la ndimbal li dana ñëw fekk lañ seen situation am ko tal yàlla ci yàlla musal ñu koy ñaanal rek yàlla dëgëral ko may ko fal gudd ak wér yaram may ko sakom nag ma àggale ci ñun bu gaawee nañu jël wasalaam may baal ak ñëpp jërëjëf voilà ali gis nga euh, soxna soosu wax na ak euh, waa ji xam nga tur yi nag duñ ko ndax ñu ci bari ay kilifa lañ te tamit euh, bëgguñu génn ci vidéo ñu leen di gis mhm. alin moom mii rek laa man dama cee sonn sax pour mu ñëw jàkkaarloo nit ñi ne moom it dafa naroon def vidéo boo xam kenn du ko gis. Mhm. waaw waaye ñee tamit dafa am situation yoo xam dañ cee dugg ñii lepp nañ lepp ko dégg soxna soosu mhm. ba doomam lepp affaire yooyu yëpp te teewul ndeysaan ñoo ngi fii di fay mhm. moom mënatula liggéey. amatul doole ji te toog trente ans ci Europe war a delluwaat Sénégal euh, li des ci dundam di ko fa dundoo vraiment lu mel ni dal ko ma nga France gee mënatul liggéey amatul lool lenn ñàkkoon na lam liggéeyoon lépp ba muy ndaw def na ko ci kër yooyu ñu xëy daaneel ko lay tax président war a am sensibilité bu def naa am na ko Marème fay Sall muñ ci woo tamit jigéen la comme ñoom xam ne jigéen bu demee ci àll di liggéey coono ba mu fay sonn voilà te tey ñun ñi ñëpp kenn ñaanu yàlla di dee ci réew yi voilà doon looloo tax ñaq yi ñaq ñu ñuy sonn ñu gisee terrain buñ gisee fu ñuy jaay bu ñu gisee fu ñu mën a tabax ñu def ko fa mhm. ngir ëllëg ñu mën a dem suñu pension ñun ñu dund ko foofu mhm. dégg ngeen boobu dafa daw yaram ñaara ngi noonu te dinaa leen tegal yeneen ñett bala ñuy tàggoo maag alim dafa nga ne alim xam nga li métti na de waaw waaw lii moom yaakaar naa ku ko dundul yaakaar naa du ko xam mhm. man de sérieusement man sax sama waxuma sama wàllu bopp ba pare am na sa ñeneen ñoo xamante ni fi ñu toll nii yow xaari boo leen gisoon sax. seeram day gën a daw. te dégg naa am na ci ñeent ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan. Mhm. waaw yàlla na ni yàlla yërëm te yeexe ñu. ndax naqar parce que naqar ci gor dafa metti liggéey nekk gone ba nekk mag. ne finalement dinaa goûter li ma liggéeyoon. ñu xëy tasal la ko noonu. Mhm. vraiment tamit dee xaj na ci. moo tax ma bëgg gis nga ma bëgg président ak ak gouvernement bi ak mm. koo xam ne président jël na yooyu teg ko sa loxo nga dimb leen nii parce que bu ñu ko defee bu yéexee mm-hmm. mën na am ñeneen ñàkk si parce que dégg naa ndaw soo xam dafa jooy ndeysaan ba ñàkk na ay bëtam gumba voilà si dëgg la kooku kooku kooku man dama kaa gis waaw dama kaa gis ba ma demee Sénégal mm. gis naa ko mm. kooku dangay danga koy xool xam ne kii moom li ko tabaaboo coono gi ko tabaaboo teg ëpp na. Ah, nga loolu ëpp loolu yëpp loolu lu ko waral toj la rek. Mm-hmm. mais nag loolu yëpp mu ngi suñu ginnaaw. Mm-hmm. fi mu toll nii xaadim. toj ba métti woon na trop. mais sérieusement jour bi ñu président di woo. Mm-hmm. palais. salle des banquiers. waaw jour boobu taxoon na. fàttewul nañ problème yëpp sérieusement nag. voilà jour boobu moom waaw bëggul woon sax kon nag jour boobu moom sérieusement. man la ma méttiwoon yëpp. seen xayma woon na dara la. mu jublu tamit ay élection amoon ca. Mhm. sama famille ñëpp laa jàpp ne leen xool leen jàppal leen Macky Sall. waa Tobago mais danaa leen ko woon même coowar bi mu war a def nii di ngeen ko gis même keroog bi ñu falee Macky Sall ba mu dem di juré ji. Mhm. victime yëpp ndaysaan ñi nekk Sénégal ak ñi mënoon a jóge ci diaspora bi dem dañoo dem ña ngi seen i pancarte def seen ay t-shirt ñoom ñëpp mhm. voté nañ Macky Sall à cent pour cent. mais xaalis li nga wax li nga wax doguma man fi ñu toll nii am nañ sama yeneen nit ñoo xam ne dañ ma ne yow yow barke yow nan nga mën a wotelee Macky Sall ndax yu Macky Sall da ngaa tabax sa kër mu toj ko man leen waaw tabax naa sama kër gouvernement ñëw toj ko loolu leneen la mais ci côté liggéey bi man laay njëkk xool dafa def loo xamante ne man jar na tax ma woteel ko. ndax mu ngi man jàpp naa ne. Macky Sall mi ngi liggéey. coopération jant bi defal naa ko fii. loolu moom loolu ah. moom leneen la. Ah. sept ans yi li mu def. waaw bu defee cinq ans yi genn wàll nga sax. vraiment jaanam wàcc na. ñaareel ba. Mhm. samay dossier mu yor ko ba pare am lu mu ci tàmbali moom. Mhm. ba am lu mu ma jox. Mhm. mu des yow bu ma juumul sax xel am na kayit boobu mu woon sànq. xam nga kii kii def naa ne mooy kayit bi nga xam ne si. moo ngi nii kii lan la woon expliqué ko gars yi waaw. kii kayit bii. moom la ñu waa domaine jox. waaw kayit bii si laa am sama baay. boole koog bàyyi. boole koog bàyyi te bu ma juumul. waaw ki nga xam ne moom la ñuy sosal temps yi mu ne fi. Mm-hmm. muy Mamour Diallo defe naa ne Mamour Diallo moo ngi nii moo signé kayit bii. Mm-hmm. waaw mm-hmm. Mamour Diallo mi ñu naan. 94 milliards yi affaire yooyu yooyu moom daañ ci ñëw mais ci yeneen domaine tey jii moom Tobago moo ñu ñor. Tobago la ñuy wax mais pour li tax ma tudd turu Mamour Diallo. fii mooy. bi ñuy dem di leen jox bàyyi moom moo leen ko signeel ci ordre Macky Sall. Mhm. ok moom moo nekkoon euh, moo yoroon impôt et domaine. voilà kayit bu wér la ñoom kayit yu wér lañ yor ci site yooyu ñu leen jox. Mhm. voilà lii problème bi rek di leen ko rappeler mooy mhm. dem nañ ba finalement jëlaat nañ sax yeneen bor pour tabaxaat foofu ndax lu wóor. Ah. duggati ci yeneen bor. ñu ñëw leen fii kenn du fi tabax. loolu nag moom dafa war a leer. waaw wala jox leen autorisation yu wóor bu ñu ñëwee ñu fekk militaire bi ñu fekk kenn bu ñuy lebati tax ñu lebati ah. gën a duggati ci ay bor seen i at gën a yeexati ci diaspora bi parce que diaspora dafa metti dafa metti trente ans nga def ko fii vraiment ah. doy na sëkk da nga war a ñëw toog Sénégal yàgg sa njaboot noppalu waaw lii ñoo leen ko jox muy këyit yu wér mhm. voilà donc man daal li ma ci dolli xarim waaw non léegi xaaral xaaral xam nga ni ñuy def. Mm-hmm. non nañ dégluwaat yeneen ñett parce que il faut gars yi dégg naqar wii ñu leen teg ñu mettee mm-hmm. léegi xam nga ni ñuy def nañ dégluwaat yeneen ñetti témoignage ngeen déglu bu baax ñii la ñuy wax mm-hmm. bugguma ñoom ñu génn ndax mënuñoo génn ndax gor su ne gor nga am na ñoo xam ne wax dafa yombul Alioune mii dama cee sonn trop pour mu doog fi di wax <laughs> sinon il fallait rek ma ñëw teg koo xam ne parce que dañ ne nett lii ci gémmiñu borom la daxe waaw man daluma waaye moom da koo dal. Mhm. moom mii sax dafa gën a métti ci moom ne moom dañ koo toj ñaar yoon. <laughs> ñaari yoon léegi avant ñuy wax te mhm. ñaar yooyu nu mu demee. xam nga dañuy def mhm. déglu ñetti témoignages yi en plus après ñu doog ñëw nga nett li yow ñu toj la ñaari yoon yow moom dafa gën a metti ci yow <laughs> mi ngi noonu. ok gars yi ñu xool lii déglu leen lii ak xel ngeen déglu. yow mii toog di ma seetaan foo ne ci àdduna Sénégal ak fu ne ah lii bu la daloon nan ngay def voilà. bëgg président tam dégg ko fàttali la mu waxoon ak li mu waxoon ñi ak coono bi ñuy sonn tey ak naqar bi ñuy dëkkee vraiment ñu seetaan ko après del si ak Aliou asalaamualeykum yéen waa Sénégal man seen doom laa bu nekk fi diaspora bokkoon ci ñu toj seen kër ci tobaago dama toog bés ñu woo ma ne ma toj nañu kër yi ci Tobago ba ñu demee yi tamit suñu président de la république def acte bu noble woo ñu ci salle des yi lépp lu ñu métti woon bu keroog bañ fay génn suñu xol sedd na ndax kenn ku nekk jox na ñi jox na leen notification ñi ci des mu ne nañu dem mbir des impôts bu ñu demee jël seeni attestation dem déposer seeni këyit bi ñu defee loolu itam dem déposé suñuy bail ñu fay suñu redevance ñu jox ñu këyit yi boobaak léegi mënuñu fexe ba jot terrain bunt bu nekk nag fëgg nañu fa ñu yaakaar ne tamit ne lii xëy na fu ñu dem tamit dañu naan sax président moo ci des président moo ci des dama yaakaar ne képp ku la woo ci palais woo télévision yépp ñu ñëw mu seereel ko àddina defe naa ne du def loolu ba pare ëlbatiku lii de des ci loxoom moo taxoon man man sama bopp ma ne naa def sama sama enregistrement def ko ci réseaux sociaux yi yónnee ko ndax mënuma jot ci président bu ko président dégg xëy na dina ñu dimbali tey tamit dañ fi yàgg ay mag lañu ba ñuy xale lañ fi ñëw doon liggéey ba mu mag ba retraité war a ñibbi ndax fii xale fi mën a nekk waaye ku dem ba mag mën a too fee toog ndax amatoo tànk yoo doxe supporté sedd bi kon na ñibbee ñu dese te ku ne xam na ne toog ci àll ba ay ati at xëy dem di toltolaan nit dafa métti moo tax ñu lay la ñaan monsieur le président de la république yow la fi yàlla teg kon lépp lu ñëw ci sa kaw lañ koy teg nga dimbali ñu yaag suñu première dame madame Marième fay boroom servir le Sénégal suñu nekkoon Sénégal suñu feebar yaa ñuy faj comme ñu ngi Europe fii buñ fi feebaree dañ ñuy faj kon buñ fi amee problème it yaakaar nañ ne war nga cee taxaw nga dim ngeen dimbali ñu ngeen dimbali ñu ndimbal la ñu soxla ndimbal la ñu soxla suñu sañoon sol suñuy daal dem ñibbi ci biñ ko mënee loolu lañ lay ñaan monsieur le président de la république nga jàppale ñu ko dimbali say tànt ñu say ñii say mag ñii di sa rakk yow rek la déglu nag bu ñu sañoon balaa sedd bee sedd bee commencé fii ci Europe ñu takk suñuy bagage dem ñibbi bu ñu demee lépp luñ fa mën a def ñu def ko fa ci jàmm ak salaam lii rek lañ lay ñaan monsieur le président rëy na nag waaye nag yow ci yow sa kaw la tegu ndax loolu la yàlla dogal lii rek lañ lay ñaan monsieur le président de la république waa kon jërëjëf asalaamaaleykum waaye ñun nag euh, dañoo bokk ci victime collectif bu boobu diaspora yàgg fi lool di fi liggéey en même temps créé fi association bu ñu tuddee xam-xamle pour rek di xamal suñu dëkk Sénégal euh, suñu dëkk tubaab yi ndax bëgg Sénégal. lépp lu ñu am nag investir luñ ko ci fii nga xam ne fii lañ ko amee mais dañ ko jël di ko rawale di ko yóbbu Sénégal ndax yaakaar na mooy suñu sag di sagu suñu di sagu njiit yi yàlla def nag a ah, ñu jëloon investir investissement yi ñu defoon muy Tobago kër ya fa nekkoon li yañ fa jëndoon ñii tabax ñii tabaxaguñu incident am ñu toj ko bi biñ ko tojee nag président Macky Sall dellu ci ginnaaw xamal ñu ne nettali xuloo xuloo la nettali xeex xeex la li amoon nañ ko fàtte te xamal ñu ne tamit moom mooy njiitu réew mi te dafa bëgg fépp fu senegale nekk su fekkee ne bëtam xonq na su gersoo dina gis njiit boo xam ne dina ko dina ko mën a dëfal dina ko mën a fajal ay ronkoñam kon nag keroog ñu kontaan lool ndax nee loolu mooy rôlu état te loolu su fekkee ne dem na ba amatul ci dëkk loolu su boobaa jarul état di am ñëpp kontaan lool parce que métti woon na lool mais mu génnee ñu ci situation boobu recaser ñëpp nag jox leen ñi ngoor jox leen ñi ñi yoof ñu fay su jox ñu suñuy noti notification ñu fay suñuy bail ñu fay suñuy redevance yëpp ba am sunu baay ku ci nekk am sa baay peut-être quelques personnes rek ñoo si jotul ah yàlla def nag ça fait plus de deux ans ñi ngi toog di xaar mais ku si nekk yaa ngi yor sa baay mais sa am waa nga ko jël dañ ci parce que boobu ba léegi kenn mënul am accès si benn euh, terrain yi ñu waxoon site yi ñu waxoon parce que militaire yi ñoo fa siège ñu ànd ak jaaxle nag artiste boo xam ne fi mu nekk nii xamuñu fuñ koy jooyee ñi ne nag. ñun àll dafa métti sonn nañu te ay vrai patriote dañu ndax lu ñu am dañu taw investir ko suñu dëkk moo tax nag ñi ne nag nañu ñëw fi nekk nii à travers les réseaux sociaux ñaan ndax dañu xalaat na Macky Sall lii yëgu ko ñu ñaan nag mu jàppale ñu lu mu gaaw gaaw parce que métti na torop ñii feebar nañu ñii ñi ngi génn àdduna ñii seen sëy yaa ngi yëngu ñii seen sëy yi tas nañu lii lii dal lii dal nit ñi fi mu nekk nii métti na torop torop torop torop moo tax nag ñi ne nañ ñëw nag tàllal ko loxo bi monsieur président lépp loo mën comme la nga ko waxoon ne suñu ronkoñ su su su su xonkee nañu gersu si yow nga dimbale ñu nag nga dimbale ñu ak gaawantu mbir yi fi mu nekk nii ndax ku nekk mun a jot la ngay jot ndax ñëpp bëgg a ñibbi fi mu nekk nii ndax yaakaar nañ ne suñuy investir Sénégal c'est pour après dem fa ñibbi suñu dëkk am fa une retraite paisible donc nag monsieur le président euh, ñu ngi lay ñaan te di ñaan tamit message yi yàlla na ko dégg ba fajal ñu suñu soxla. asalaamaaleykum waa collectif Tobago diaspora bi man maa ngi bokk ci victime Tobago yi toj seen kër ci ginnaaw aéroport bi vidéo bi nag ñu ngi koy def pour interpeller le président de la république Macky Sall ak soxna Marème Faye Sall ñun nag dañoo toj suñu kër ci ginnaaw aéroport bi boobaa léegi mu yàgg lool monsieur le président mat na cinq ans te monsieur président yow dañoo recevoir ci salle des banquets sa sapale boobu ñii jox naa leen ngor jox naa leen yoof bu ko benn loxo laabu benn la bu ñëw ni ñoo ko moom boobu ba léegi nag amuñu ci accès mënuñu cee am dara jotuñu dara ñoo ngi nii toog di xaar joxe suñuy boo fay suñuy boo fay suñu redevance yépp mais boobu ba léegi gisuñu dara ak ñu ñu fàtte léegi la ñu lay ñaan président ñun sa njaboot lañu ay immigré nañu waaye ci réew mi nañu bokk ñu ngi participer si développement bi xam nga nekk bitim réew di liggéey di daan sa doole muy taw yaa ngi liggéey muy neige yaa ngi liggéey muy tàng ba ay vingt cinq degré yaa ngi dem di daan sa doole pour bëgg boo ñibbee am kër goo dëkk yaag sa njaboot ñu toj ko metti na ci xol monsieur le président yërëmal sa njaboot gi yaag sa soxna su baax soo ñu ndey ji seex madame fay Sall nit ku baax la ñun daal loolu nañ am lu ñu lay wax monsieur président boo ñu mënee dumbali nga jàpp ñu yàgg na dañoo bëgg ñibbisi nekk immigré plus de 20 ans yaakaar naa ne loo ci dolli say at sa kàttan wàññeeku na sa doole wàññeeku na di nga mën a amaat sax la nga amoon ba tabax ko ay kër parce que ay millions la metti na jàppale ñu sa njaboot lañu jërë ngeen jëf merci alim gisati nga loolu yaram gënati naa ndaw dëgg la kii kay xarim problème bu tabago yaakaar naa ne xëy na président pour man daal information yi daf ko ko jotagul bu baax quoi lu wa tabago lu ñuy dund. maintenant man ndax yaakaar naa tabago lu ñuy dund fiñ tolni toll nii yaakaar naa bu ko président jotaatoon dëgg. kan naa dina gën a gën a gën a bari affaire bi dafa gën a metti ndax man vraiment yi ma ci yónnee bari na trop mais xam ngeen vidéo bi tamit ñu ko def trois heures de temps c'est impossible moo tax ma jël ci juróomi témoignage rek mais kenn ku ci ne mel na nga waxal nga ak ñépp waaw ndax naqar boobu ah moom la ñoom ñëpp di dund donc juróom yi nga xam ne si dégg ngeen leen ah, ak àllin mi muy juróom benn hmm, ci ay victimes defe naa ne waxal nañ

man am na ñoo xam dañ may naan yow yow yow yow Macky Sall yow lan moo war a tax nga bëgg Macky Sall. waaw ah. man la Macky Sall dinaa ko bëgg ndax mu ngi liggéey. wallaay Agir man du sama kër li caagale la ñuy toj. waay Massal non loolu kër gi leneen la. tu as bien fait. yaa ngi dégg mais man jàpp naa ne moom côté liggéey Sénégal moom mi ngi liggéey. il faut donner à César léegi nag xëy na ndogal la nag man jàpp naa ne ndogal la mais xëy na sax Macky Sall def na ko. mais gënalu ko la preuve ko ba mu ko defee hmm. après réglé waat na woowaat nañu joxaat ñu. kon nga la xam ne kon moom li mu def gënulu ko. vraiment léegi nag ñu ngi koy laaj. Mm-hmm. mooy yéene boobu ñaan waaw di ko ko ñaan président yéene boobu mu amoon. yaa ngi dégg mm-hmm. yéene boobu mu amoon ci waa Tobago. mu bañ a tas seen yaakaar mu ndax fi may wax ak yow nii. wallaay asi am na si ñoo xamante ñu ngi ci collectif bi. Mm-hmm. mais ñooñu ba tey jàpp nañ ne ñoom. Mhm. mbirum tabax boobu Macky Sall dafa nar a tas seen yaakaar. am ah, na ñoo xam ñoom loolu la ñu. ah non du kuy tas yaakaar. waaw Macky lépp lu mu mës a promettre def na ko. xëy na kay nee naa léeg-léeg dañ ne buur aay waaye dag yaa aay nee léeg-léeg. Mhm. buur dana jël teg ci loxo nit nit kooku du def la ko war. Ah, xëy na président ay yi muy yi muy ne ci boppam beeg ya muy toppatoo dafa bari lool. Mhm. waaye yaakaar naa ne lii dana ci taxaw balaa yàgg. bu ci taxawee de bu ci taxawee xaalis dina nekk lu gën. dana ko def. ndax man am na Macky Sall moo mm-hmm. njaboote sénégalais yépp mm-hmm. Macky Sall ñii nekk à l'extérieur ci diaspora bi neexu ko sax da cee mënul dara. Mm-hmm. donc bu buñ mënee demal bu amal seen bopp mën a ñëw seen réew. bu leen defar lu doon yàqal def naa. waaw xaadim xaadim yow doy nga seede ndax si diaspora bi nga nekk. waaw yow ku ne xam nga ne fii dañ ciy daj. mi ngi noonu. fi mom sa way pour taxaw ci ben xaj pour yob ko senegal Macky Sall xam na ko sax mom ci bopam kon yaakar na ne lañuy dund xoslo lu gaay naan xoslo ah. indi suñu affaire ñew tek ah bu bu nek non ay suuf yu met na met dal ku deugarul deug de dag ci ñak sa bakkan wala nga ñak ci li nga xam moy sa santé ku sañon nak bo sonné mm-hmm. dem ba wara dem retraite mm-hmm. da ngay ñew do jël la nga amaku su diko def ci ay garab mm-hmm. ndax metti xol li dafa metti vraiment def naa président ci moom xam na ko sénégalais xam nañ ko ñëpp xam nañ ko voilà ñun daal dañ ko ñaan def naa ne Macky Sall lii ñuy wax moo ñu ko gën a xam dana ci jóg dana ci dox ay jéego dana leen taxaw ba yéen ñii kayit bu ñu la jox da nga ñëw kayit tabax fa nga nekkoon ndàmpaay boobu mu leen waxoon def naa nee leen ñi commencé woon dañ leen jox dix millions ba vingt millions bu ñu leen joxee loolu kenn ku ci nekk la nga doon fay parce que li gën a metti ci mbir mi àllit mooy mm-hmm. ñu ci bari ñu ma dégg mooy dañoo leb ñu toj ko ba pare léegi ñoom ña ngay fay pare ya. yow miit yaa ngi koy fay ci loo xam ne xamoo suba foo jëm ndax fi ñu toll li ci gën a métti mooy yaa ngi fay loo xam ne loo jotu ah, mais mi ngi noonu fi toll nii maanaam xarim mm-hmm. affaire bi maanaam pour man simple na quoi fii amul miracle bu fi am fii da ngay liggéey rek ñu lay fay te tubaab yi ah, ah. ah, det boo ko lebee banque am da nga fay fii de ñoom moom rek la wuñ dañu toj sa kër ak ay tobago ñoom seen yoon new da ngay fay looloo tax état bi war a nag tenir compte de ça mm-hmm. que ne yéen da ngeen leb xaalisu jàmbur boo xam ne mm. da koy fay à la kuli ndax képp ay jullit lañ. mënoon nga xëy daw. doo ñëwati Europe mën nañ laa wër wala naa nga waaye yaa ngi cee xool diggante ak sa borom loo leboon mu lew la doom hmm? danga ko war a fay ndax kat mën ngaa daw tubaab bi fii waaye àllaaxira mënoo ko daw. da nga koo yoral borom. lii nag état Sénégal ñoo ci war a mën a taxaw dimbali leen dimbali njabootam gi na ci diaspora bii. sérieusement yéen ba léegi waxu leen ci woon yéen a ngi doog wax. lu ne wax nañ ko fu ne jaar nañ fa. yéen nag nekkul woon da leen a da leen a neexul wala da leen a intéressé wul ndax na mette ña ca Sénégal la leen gën a mette yéen ñi rayante fii du matin au soir donc loolu nañ ci tenir compte voilà te xam ne metti na leen c'était juste tabit ngeen wax wax ngeen président dañ leen dégg état Sénégal leen dégg peuple Sénégal leen dégg ñi ne diaspora bi yépp daañ xam ne kat yow mii tey ji waxal nga leen ñoom ñépp ndax sa naqar mooy seen naqar voilà mi nga wax loolu daal la demee xaalis ñun daal li ñu ci président li mu indi daal. waaw mooy daal fexe président jot ci quoi. jeex na ñu amaana ñu suñuy affaire mais na gën a bàyyi xel ci waa Tobago te xam ne waa Tobago na ñu mhm. te fi ñu tele moom rek moo ci des. jeex na waaw na jàppale waa Tobago na jàppale waa Tobago. président daal na leen leeral lan moo tax site yooyu ñu leen jox ngeen dem militaire yi ñu ngeen fa tabax voilà.

lii moom xëy na maa ngi ñaan yàlla mu àgg ci président wala ñi nga xam ne jege nañ président nañ ko ko jox ak ñi nga xam ne ñoom la président teg loolu seen loxo ah ñu taxaw ci xam ne nag ñun duñ ci sonn duñ tay tàyyi ñoo ci diaspora bii buñ commencé la mais duñ tàyyi ci ko fàttali toujours ba keroog yéen ñi ñëpp ngeen mën a toog fi sant la président de la république sant guvernement Sénégal ah, ci taxawaay boo xam ne si vraiment taxaw nañ leen ko jàppale nañ leen dimbali na leen. kon nak Aliou nuyul gaay yi ñu nuyu leen taggu leen waaw benn problème maa leen di dolli waat di la nuyuwaat waaw di sàkku ñaan daal ngeen ñaanal ñu baax affaire bi sotti si jàmm quoi amin ndax tamit yàgg na trop xaar bi yàgg na amin mais ba tey tamit dañuy jàpp ne rek ne xëy tamit ñu nit ay julit lañu dañu jàpp dafa jotagul rek waaw yi naan daal lu jot yomb waaw waaw ba tey dañoo jàpp dafa jotagul quoi mais insha bu jotee dina yomb quoi mi ngi noonu ñun daal lu ñuy ñaan daal président ñu lay delluwaat di la waxaat daal affaire bi hmm. yaa ko jëloon en charge mhm. jëlaat ko en charge affaire bi yàgg na yéex na mhm. affaire bi daal fi ñu toll li ñu soxla mhm. mooy terrain yi ñu jot ko pour mën a tabax suñuy kër quoi ñu lay ñaan nag affaire bi moom daal nga gën ci taxaw ko voilà gërë ngeen jëf waa Sénégal kon nag gars yi foofu la ñuy tëjee yéen ñëpp di leen nuyu di rappeler président loolu nga xam ne moom la Aline wax di massawoo ñëpp ñi nga xam ne ay victime mu Tobago lañ gëm yàlla gi ngeen amoon gëmaat leen yàlla gu ko ëpp Hmm? te xam ne ni ko Alioune waxe lu jot dina yomb président daal la république Macky Sall daawul wax di dindi lu mu mës a wax def na ko lu mu mës def na ko yaakaar naa lii réeroo ñàkk waxtaan a am mais Macky Sall bu jotee ci lii ah, dana jóg ci lim leen waxoon te bis dana ñëw danaa taxaw man Khadim Gueye fii taxaw na leen président kat lu mu mës a wax def na ko lii tamit taxaw na ci def na ko kon nag gars nañ sant yàlla di leen massawu yéen ñépp nag waaw muñ leen rek la ëppoon weesu na waaw li ci kanam moo dax kon nag gars ba ci fan yi leen wax ngeen bindu ci bi Khadim Gueye TV ku ko def loon bësal bouton bu xonq bi ah lépp lu ñuy wax ngeen mos koo dégg mun koo dégg voilà ndax ñun kat Sénégal lañ fi nekkal sore nañ fa waaye lépp luy problème bu Sénégal ñi ci diaspora bi ñi ne ci diaspora bi daañu leen jox voix daañu wax waxal leen tamit boole ci kon nag leen sant leen gërëm di teg lepp ci loxoy président de la république son excellence le président Macky Sall ak soxnam Marème Faye Sall ndax am nañu ñu bare ñu ko woo ci vidéo bi ñaan dimbal ci mom parce que kenn ko ne tamit ah soxna la ak serignam voilà. aja bobu tam def na lu bari ci Sénégal vraiment ba tax jigen ñek ñep di. am loo xam dañ koy ñaan di ko sàkku di ko jaarale ci moom tamit pour mun ko jot li jëkkër mun ca taxaw taxawaayam kon nag def naa soxna Marème Faye Sall dina def liggéeyam moom tamit ndax gars yi woo nañ ko ci kon nag gars ba ci fan yi jërë ngeen jëf